asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu man la Balla Dramé coordinateur APR Ghana dama bëggoon a ñëw wax ci li xew ci réew mi fan yi parce que coow li bari na lool ku nekk mi ngi naan pétrole indi pétrole am pétrole demal pétrole maa ngi ñëw li waral loolu noonu yëpp du dara nag opposants yi rek la opposants yi tey ñoom ñoo jukk pour xëpp si cere ji suuf te ñun loolu diaspora duñ ko nangu parce que am na loo xamante ni son excellence Macky Sall liggéey na ko muy liggéey bu rëy ci premier mandat mu liggéey lu am solo ñun waa diaspora bi ñu gis suñu bopp ñun ñi nga xamante ni ñooy dund bitim ñu gis suñu bopp te kontaan ci trop loolu tax na ñu accompagner ko ba mu gañee jël premier mandat am ci premier tour daan gaay yi jël bu rëy gañe leen gañe boo xamante amul benn werante loolu nag tey moom moo métti opposant yi nga xamante ne ni xamuñ fan la ñuy teg seen tànk xamuñ fan la ñuy taxaw ba tax na tey ñuy ut ay pexe di ut ay pexe yoo xamante ne ni pour jéem a xool naka la ñuy taqalee ay problème suñu président ñu jéem ko jaarale ci rakkam muy Aliou Sall mais ñun suñu bopp xam nañ ne soxlawuñu Aliou Sall président de la république lañ soxla te président nag mooy suñu président ñun ñoo ko tànn te ko ci réew mi te da af loo dafa am loo xam ne dafa am yàlla moo xool ki ko neex fii ci Sénégal mu tànn ko mu nekk suñu njiitum réew muy président de la muy Macky Sall te yàlla ki mu tànn su fekkee bëgguloo ko wala nga di ko xeex dafa mel ni yàlla rek ngay xeex te ku xeex yàlla ku ne liy tooy ci yow lay jógee donc nag yi xam leen seen bopp xam leen fi ngeen war a teg sa tàkk dem leen liggéeyiwaat parce que heure bidou, du heure politique heure bidou, du heure campagne mais il y yéen a ngi bëgg nekk ci politique nekk ci campagne campagne yi jeex na élection yi jeex na politique jeex na liggéey moo des bàyyi leen suñu président mu liggéey yeggal li mu fi sumb ba deuxième mandat bi mu commencé mu yeggale ko si jàmm ak salaam su ko defee Sénégal neex ñëpp gis seen bopp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu